imposer yenn affiche yi maanaam finalement suñu choix suñu possibilité de choix dañ koy annuler ak le système di parrainage parce que nit ñi dañu négliger benn problématique su may naataangoo candidat yu bëri ñu ngi wër réew mi li ma leen di wax moom mooy réew dem wër réew mi baax na wax ak sénégalais yi mais tey enjeu wu bi moom mooy parrainage bi nan lañ koy contrôler nan lañ koy valider. parce que mën nga dem tey ñëpp jox la ay pièces d'identité déjà parrainage bi commencé gul xaw ma lu tax gars yi di dem déjà di wër parce que parrainage bi déjà fiche bi génnagul benn. Mm. mais bu ñu demee ba jël loolu yëpp tey euh, fa nga jaaroon ñu parrainé la mais yow dernière minute nit ñi mën nañ fa jaar signal keneen. les doublons. te dara du leen ci fekk. Mm-hmm. beneen bi moom mooy tey. ci fu ñuy waxee nii ñoom dañu jàpp ni tirage au sort moo war a am pour dépôt yi. maanaam ku nar a nekk président de la république foog mu am chance bu bëri. ku nit ku am wërsëg déjà ci tirage bu ñu loterie ba pare nga nekk premier. est-ce que démocratie mën na nangu ñuy loterie pour ne président kii day dem du am doublon ñoom nag daam li nga xam ne aussi teg nañ ko. mais loterie bi moom mooy nanguloo ko de. Hmm? nanguloo loterie bi. non yooyu yëpp man parrainage moom dara nangu <laughs> ci loterie beeg. Euh, signature désormais il trois types de de parrainage foofu laa doon jeexee. voilà xam nga loolu aussi dafay indi benn rupture d'égalité ci langue politique bi non pas au niveau des candidats mais au niveau des comp euh, des formations en lice parce que dañu ñëw jël benn photographier rapport de force yi au niveau de l'Assemblée nationale bëgg na ñooñu ñooy déterminer euh, participation bi en tout cas benn parti ci compétition présidentielle bi moom mooy lan mhm. moom mooy dañu ñëw fii ñu ne treize députés wala cent vingt présidents exécutifs locaux donc boobu xam nañ ñan lañ ça veut dire que déjà tey ñoom ci seen vivier bu ñu yor treize yooyu bu leen neexee mën nañ yekkale benn ñaar ñett ñeent juróomi candidat dégg nga de ñu ñoom seen majorité présidentielle seen seen participation mën na nekk euh, kenn ki nga xam ne majorité la mën na kenn ki nga xam ne day génn sax nekk soi-disant indépendant fekk du indépendant ah, mais au final objectif bi moom mooy dañ koy imposer ci affiche bi maanaam day nekk benn choix xam ngeen ko en matière commerciale voilà donc euh, imposer nit ñi comme am nañu choix mais en réalité amuñu choix parce que dañ lay naan entre tel ak tel ak tel choisir mais koo ci jël rek Macky Sall nga diwaat donc moo tax ma jàpp ni tey enjeu bi fu ñu ko war a teg tey combat bi moom mooy xeex processus électoral bi fichier bi jotaguñ ci tey nee nañ la 6 pour cent mais sànq ba sànq ci suba kenn mënula wax 6 pour cent lan lay tollool en nombre de parrains minimum ni maximum 8 pour cent bi donc ma jàpp ni loolu yëpp stratégie la